nekk ci benn réew boo xam ne bii ay réewu expression réewu liberté la nit ñi dañ fi war a nekk di waxtaane lu nekk ku nekk di jëf sa sa sa sa liberté nga di ko exercer mais day am am ay moment yoo xam ni dañoo war a toog ñu def comme Lénine bi mu nekk situation très sérieuse daf na nan taxaw nañu laaj lan lañ war a def ci lañ lañu war a def boobu ñun dañoo gis ne waxtu wii nekk na waxtu woo xam ne wii am nañu benn noon buy rey xamuñu fu mu nekk xamuñu nu mu mel xamuñu kañ la fiy jóge kon nag au delà ñuy def li nga xam ne bi moom moo nu gën a yomb ñun ñëpp muy mesure barrière yi mooy masque yi ngeen takk mooy distanciation bi nit ñi di def mooy couvre couvre bi ñu def mooy lépp li nga xam ne ñu ngi koy def ci sorendoo raxas loxo yeeg affaire yooyu am na lu essentiel loo xam ne am na loo xam ne moo ñu ci mën a gën a sooy ginnaaw dogalu suñu borom moo ñu mën a dimbali pour que ñoom am immunité bi nga xam ne bile moom la ñuy soxla mooy ñàkku bii nga xam ne bile àddina bi yëpp ñu ngi koy def ñun ñu war koo def te muy indi ay coow ci tele yeeg rajo yeeg ak ci mbedd yeeg fu nekk ñun ñu décider ne dañuy ñëw. pour ñaan suñu kilifa diine yi amul exception kilifa diine mooy bu jullit bu catholique ak yépp ñu leen di ñaan comme ñoom dañoo nekk ay nit yoo xam ne yii nit ñi dañ leen a yaakaar fii yaakaar leen àllaaxira ca bu ñu waxee nit ñi def li ñu wax ñu leen di ñaan ngir yàlla ak yonent bi nañu toog kilifa gu nekk na jël porte-parole mbaa mu jël micro boppam wax ne képp koo xam bi yaakaar nga ma képp koo xam ngi déggal nga ma damaa bëgg nga dem nga ñàkku ji ah yaakaar naa ne de murit yeeg xaadir yeeg tijaan yeeg catholique yeeg yëpp ku ci këla jiite wax loolu di nga dem ñàkku ci bu ginnaaw bu loolu weesoo may demandé chanteur yi mel ni ay Youssou Ndour ay Thione Ballago Seck Wally Seck Pape Diouf ñoom rappeurs yi ñoom DJ Awadi ak gaa yooyu yëpp rappeurs yëpp bu ma ko waxee ñëpp ngi ci biir woykat yëpp bu ma ko waxee ñëpp ngi ci biir ma leen di ñaan comme ñoom dañuy def ay concurrence seen fans club dañuy def ay concurrence di wax ah man de moo man Youssou moo fi jiitoo kii moo na kii ma ne ma ni leen concurrence boobu ngeen koy def ca ngeen nekk di def ay vues di wax naan kii am na ay un million de vues kii am na lii damaa bëgg yéen leader yooyu ngeen wax seen fans club yooyu ne leen léegi man dama bëgg a ëppale ay nit yoo xam ni ñoom ñoo ñëkku su ko defee ñu xool ci ticket de ñàkku yi nga xam ne bi moom la ñuy wane di leen ko indi ñu xam kan moo ci ëppale ay ticket ñàkku yoo xam ne wane na ko bu ñu dikkee mbër yi ku mel ni ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ñoom Eumeu seen ku ci nekk Balla gay na ne e man kat am na un million de fans club yoo xam ne ñàkk nañu Eumeu Sène def ko keneen ak keneen def ko parti politique yi nga xam ne bi dañ doon toog fii di xëccoo dox man de maa ëppale ay parrainage fii ñun APD ñu naan waaw ñun de joxoon nañ Macky Sall 40 000 parrain pare kii ne jox naa ko 20 mille pare ñun nañ toog ñu ni parti politique bu nekk am naa tant de militants yoo xam ne yii tey jii dem nañu ñàkku ji compétition bi nañ ko yóbbu ci ñàkk bi ku ku ku amul ay nit mënoo ñàkkaloo kenn mais koo xam ne kii am nga def nga ñàkkaloo nga vingt mille personne quarante 000 personnes xam nañ ne aujourd'hui am nga ay nit yoo xam ne déggal nañ la parce que pour nga nekk leader na am ay nit yoo xam ne boo waxee ñu dégg la ñu def ko mais sa jubu bopp kese nga toog di wax na ma leader la un leader day am mbooloo mu nekk ci gannaawam boo xam bu waxee ñu déggu ko kon nag ku nekk wane lim man ci kon compétition ñàkk lañ lancé ku mën sa morom wanal la nga mën a wane ci affaire ñàkkloo ay nit suñ ko defee ñu xam ko gisa tey ji bu fekkoon ne nekkuñu woon ci li ñu teree rassemblement yi kon dañuy wax état bi ne ko fayal gars yi ñu def ay concert concert bu nekk bal nga faa dugg nga joxe benn ticket wane ne ñàkku nga kon nit ñëpp dana ñokk parce que am na ñoo xam ne nii fu Youssou Ndour nekk Ballago Seck nekk fa ay di jaaw di ñoom nekk fa boo leen nee ñàkkul pour dugg fi dana ñàkk pour wane tikki bi pour dugg parce que nit ku nekk ak la la ñor kon noonu lañ ko doon defee. beneen bi mooy xam moom laa ci bëgg a dolli mooy nañu bàyyi Sénégal di def ay confusion il est vrai que nekk nañ ci benn société boo xam ne bii société de liberté la société nit ku nekk nga wax lala neex bu fekkee du yàqal keneen ka nañu bàyyi bu benn problème amee rek ñu gis ci politique ne Macky Sall comme Macky Sall moo ko woote ou moo ko jiite man dama koo contre duma ci def dara loolu nañ ko bàyyi. le président Macky Sall dama bëgg yéen citoyen yëpp ñu xam ne kooku suñu serviteur la li muy gérer ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñoo ko ne xoolal de telle période ba ba période bii demal nga jiite ñu doxalal ñu. bu nu àggatee ci beneen période su fekkee ne am nañu lu ñu neex ci yow ñu continuer ko bu ñu ko kiwut ñu ne la hee li ñu la joxoon jël nañ ko kaay ñu jël sa beneen morom mu dem fa comme li mu yor moomu ko muy benn. deuxièmement le président Macky Sall moom du mooy décider ci liy xew dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañu nekk ay docteur nekk ay professeur di bind ci revue scientifique yi di dem ci bitim réew. ñu bare ngi nekk ci yeneen réew yi fii lañ leen jàppale ñoom jàngal leen ñuy Tunisie ak ay Maroc ay fu fii lañ leen jàngale kon ñii ñu yor ñoo am xam-xam bi ñoo yor dogal yi ñoo ñëw ne président Macky léegi ñun dañoo bëgg nga tëjal ñu tel quartier confiné ñu ko ou bien defal ñu couvre pour telle période bu ko defee ñoom amuñu dogal imposé nit ñu couvre-feu président Macky mi nga xam ne bi moom la constitution bi may ne ko yow yaay jël arrêté baa nga jël décret bu ko defee kenn dootu dox telle heure kenn dootu génn telle heure defal ñu loolu moom mu def loolu parce que loolu la man kon nañu xam ne du moom mooy décider ci vaccin du moom mooy décider ci mesure ña war a décider ci mesure yéen ñëpp xam ngeen leen mooy ñoom professeur yi ak ñoom professeur boobu Eva Marie Coll Seck ak ay Mame Thierno Dieng bu hôpital principal ak seeni naatangoo ñooñu ñooy décider parce que ñooñu ñoo jàng ñoo am xam bi kon décision yi jóge ci ñoom buñ ci gis mbiri politique nañ ko nangu ca itam ne du ma wax si newut dama bëgg Covid bi gis pour que loolu wàccewul président bi ca mi ngi rey ay nit ca mën na laa rey yow mi koy wax mën naa rey sa mbokk ca mi ngi koy def mi ngi rey suñuy mbokk mi ngi rey suñuy dëkkandoo ca ñii ni ñii ñu ngi dund di ko di yor réew mi kon loolu na nit ñëpp am xel fañ war a xeexee mooy ca carte ya bu ñu demee ci élection yi di fa joŋee foofa la xeex ba nekk fii ñun ñëpp war a boole suñu doole bu xeex mbënd mi fi nekk te am nañ ay scientifique yoo xam ne yii lépp loo xam ne lii mi ngi xew ci affaire vaccin yi réew ma mu jóge vaccin ba composition ban ca def ak yooyu yëpp ñoom danañ ko xool te ñoom daan ci ñakku kon léegi nañ ko def ca it nañu bàyyi suñu li ñuy suufeel suñu bopp mais pourquoi ñu naan nit ku ñuul nit ku dëkk Afrique moom daal benn espèce à la daal mel ni comme ay bàyyi ma yoo xam ne da nga war a ñëw loo jël ci mbalit di ko teg seen kaw looy essayé luy rey nga ñëw essayé ko ci ñoom mais ñun lu tax ñuy nangu ñu ñuy gisee noonu te sax kenn gisewuñu noonu ñun ñooy gisee noonu suñu bopp ñun ñoo xeeb suñu bopp ba yaakaar ne lu nekk mën nañu koo teg lu nekk mën nañu koo def mais loolu c'est écœurant frustrant te war nañ ko bañ ñun dañoo jàng ci école yi comme ñoom ñun dañoo am ay ressource minières ñun ñu nekk ay nit yàlla suñu borom jël ñu nañu yéen kat Sénégal gii laa leen teg fi ngeen juddoo fi laa leen toog mu ni ñii yéen kat Amérique gee fi laa leen def ñii mu ne leen yéen Russie laa leen teg te ku ci nekk defal naa la la nga war a dunde ak la nga war a nekke ca fa ma la teg est-ce que suñu maam yu jëkk yi dañ nekkoon fii pour di dem di lekk Inde mbaa ñuy lekk Chine ci suuf sii lañ daan toog di fi bay li ñuy lekk ñun ñoo indi suñu bopp ay problème ñoo nekk fii bëgg ay caviar lekk ay affaires yoo xam ni bayuñu ko fii kon problème yëpp ñun nañu xoolaat suñu bopp respecté suñu bopp gëm suñu ñii nga xam ne bi ci école yi lañ génne forme ñu bari yóbbu leen feneen li leen nit ñi ëppalee leen dong la mooy seeni réew dañoo am ay plateaux médicaux mais xam-xam bi fii lañ ko jëlee ñi nekk Tunisie nekk Maroc fii leen jàng ci université de Dakar ban demee seen réew tegal leen ay plateau ñi leen doon jàngal fii di jël seen ay malade di leen ko yónnee di wax yow maa la jàngaloon fajal ma sama nit kii parce que kooka am na plateau bu ko jàngaloon amut mais affaire vaccin bii ñoom ay virologue lañu ñoom ay scientifique lañu de renommée internationale kon nañ leen wóolu ngir yàlla ak yonent bi bu vaccin bi ñëwee nun ñëpp nañ dem vacciné wu parce que aujourd'hui population Sénégal ay 4 15 million bis bu ñu juumee fi ne ba vacciné ci ay 7 millions 5 ak ay 8 millions am nañ immunité loolu moo ñuy sauver ñu xeex mbas mi jublu ci suñu réew pour jëm ko defaraat donc loolu dafa laaj ñu réarmé wu ñun ñëpp def face pour jëm koo régler